quelque que soit décision bu ñu jël dañuy manifester bu soobee yàlla loolu dama bëgg mu leer benn yoon waaye à côté de ça li ñuy wax gis nañu ñu ngi koy def Ziguinchor démb ba suba ba ngoon tàng na jër foofu ne leen nañu libéré Guy mari Sagna bi ñu jàpp bi ñu demee ba 18 xale yi fa yi ñu fa jàppoon gii di leen seeti fan ñu jàpp ko moom dañoo barki ba démb dañoo dañoo toog ne xale yi bàyyi nañ leen dem leen xale yi ne leen duñu génn fii tànk gii génnul ñu nag moom fii tànk génnul noonu ñu koy defee Ziguinchor xale yi occupé la rue te tey dañuy xëyaat occupé ko te man mii maa joxe ndigal gi bu ñuy jàpp man la ñu war a njëkk ñëw jàpp si noonu lañ koy defee feneen ak feneen Géejawaay pikin Kër Massar Yëmbal Ndakaaru commune par commune nag di essayer daje fenn sax jaru ko na doon lu spontané commune par commune ba ñu xam lan la ci Macky Sall mën may wax nag ak ndaw ñi ndax dafa mel ni ndaw ndaw ñi ñoo nekk au cœur des de, tous les discours ndaw ñi lay waxal ñoo nekk au cœur de tous les discours dama ne fii ab laago cib xel newu fi ay nit yu mature fi nekk jàng ba xam li ñu war a xam di suivre li xew ci àdduna bi yëpp bu ñu jàpp ni ndaw ñi ay innocent lañu ñu xam ne da am ñu leen di manipuler di leen joxoñ fi ñu daw déedéet loolu amul fii nañu bàyyi yooyu ñi ñu jàpp ñi ci bëri ay boroom kër lañu ay nit ñu jàng ba am ay diplôme lañu duñu ay dof suñu duggee ci lii dañoo toog ba gis ni gis nañ ci seen bopp mooy gis nañ ci avenir du Sénégal loolu moo leen tax a dugg ci lii suñuy wax ak ñoom nañu xam ne ay responsable la ñuy waxal su ku jàpp ni dafa am ku sexal ndaw ñi suukar man de aw ma dërëm bu ma jox xale yi ñooy cotiser di ma jox far joxuma leen xaalis diguma leen damaa ñëw ak sama discours ak sama programme pour le Sénégal ou pour l'Afrique ba ma koy door kenn xamuma ñu toog di wax di wax nit ñi di gis par benn benn ba tey mu toll nii mu toll nii kon bu ñu jàpp ni dañoo nekk ak ay nit ñoo xam ne ay irresponsable lañu wala ay innocent lañu nit ñu ñor xom xam àdduna xam réew mi ñoo nekk ci mbedd mi tey di xeex yéen ndaw ñi lay waxal xam ngeen seen intérêt fi mu nekk xam ngeen ku leen di essayer mbubboo pour jël ay milliards moom moom ak njabootam ñoom ñëpp di wax seen njaboot xam ngeen fu ñu nekk su ñu nekkul école française wala école américaine ñi ngi bitim réew ñu nekkee bitim réew fa ñuy dëkk rek yéen su ngeen fa demoon da ngeen di jaaxle ñi leen di utiliser la preuve fu ñu dajee seeni i fan lay mujj ay dóorante ci séddoo xaalis man de aw ma paas moo leen jox te saa yu réew mi ne yëngatu sama kër ngeen di ñëw yendu añ bu ma leen jox sax aw tey duñ leen mës a trahir billaahi wallaahi lañ leen wax ak liy yéene si ñun ci réew mi amul dara luñ ci soxla luy suñu bopp amul salaire sax bëgguñu ko ci su dee dañu war a joxe suñu bàkkan gi ngir réew gi baax définitivement jaral nañu ko kon ñi leen di wax naan leen bu leen génn bu leen dem bu leen def lii na ngeen xam ni ñoo ñu ñaar moo mun a am soit xamuñu lu xew ci réew mi te loolu dina ma jaaxal walla conception bi ñu am parce li ñu bëgg a wax mooy bàyyi leen Macky Sall na dóore na tëjaate na reyaate ba yàlla jëlee su ko boppam mu xëy rek yàlla def ko AVC mu dem yoonam waaye bu leen xeex dafa mel ni loolu la ñu bëgg a wax ñun ko ñun ñu toog di ko seetaan kon yéen ndaw ñi. ñun ormal nañu ñëpp te nañuy ormalante ndax bu ñu traité comme des irresponsables nous ne sommes pas des irresponsables bu ñu xeex jaralee bis bu ne ñu xëy wax lu bon ci ñun bis bu ne ñu xëy pexeel ñu pour tëj ñu bis bu ne ñu xëy pexeel ñu pour faat suñu bakkan loolu du irresponsabilité bëgg réew mi la kon bu leen kenn dévier ci xeex bi on a une chance istorique de reprendre notre destin en main historique tey bu ñu ko bàyyi mu romb gis nga humanité ay cycle la bu cycle ba rombee rek balaa muy ñëwaat yàllaa xam kañ bañ ko ratee suñu début indépendance moo ñu topp ba tey ji kon ngeen laay waxal intellectuel bi yow mi nekk diaspora yow mi nekk ci li bërëbu liggéeykaay bu leen kenn dévier ci lii nga xam ne xeex la pour defar suñu réew ba mu gën a baax réewu tubaab yi sax te mën nañ ko te nañ ko gëm ñeenteel bi may daanele ci toujours ci plan d'action bi mooy dañoo jàpp ni xeex bi dafa mel ni xeexu état bi la état parti état wala coalition état état Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi dama wax lu leer état coalition état ak Yewwi Askan Wi ndax it ci biir opposition Yewwi Askan Wi wéet na ci xeex bi de. nañ ko wax nag xeex bi Yewwi Askan Wi moo koy xeex fi mu toll nii tembe ci biir opposition léeg-léeg sax nga gis les oppositions de makisal Sall par Macky Sall wala ñu wax en tant que opposition ci Macky suñu xëyee suba bëggoon jot ci Yewwi Askan Wi la nekk xeex bi dafa jot nag ñu delloo askan wi baatam parce que bëri na ci askan bi koo xam ne ànd na ak ñun waaye du génn ci mbedd mi moo xam wérul moo xam mënu ko wala wala wala wala sax dafa ragal loolu day am waaye kooku war naa mën a bokk ci xeex bi ci yeneen anam moo tax ñu ne dafa am ay kuréelu politique yoo xam ne ñi ngi xëccoo waaye il faut que askan wi ñu dégg baatam nun nag dañoo bëgg a delloo baat askan wi nañ koy defee mooy dañu gëm ni képp koo xam ne ñu déglante bu baax de képp koo xam ne Macky ni mu yoree réew mi d'accord ci mooy ni mu jëlee suñu réew jaay ko tubaab bi ak naar bi ak chinois bi ak keneen ak keneen ni mu jëlee suñu alal réew yi ci des séddoo ko moom ak ay mbokkam ci politique ak ci deret ni mu salfaaje suñu démocratie ba kenn mënatul xam kan lan moo lan mooy politique ci Sénégal compétition électorale mënatul am ci Sénégal lu dul moom rek ay samp ndëndam ñi ci des ñëpp mu écarté leen ni mu dellooyee suñu réew ci liberté ba tey ku ne d'accord maag moom boo nooyee sax mu tëj la kaso sëñ Abdou Bara Dolly ma nga fa ñi ngi wax député yi mu tëj kenn xamul ñaata la député lebewoo immunité am defoo dara ci jamono jooju député yi doon luxus xaalis ak ñu doon trafiqué visa ak yépp ñi ngi doxantu ndànk ci mbedd mi